apporter témoignage ci Gaston Mbengue mu nekk euh, nit koo xam ne dafa dugg moom laa njëkkee ci moom dafa dëggu euh, lu mu la war a wax di nga ko dégg incha allah nit ku baax ku am kóllër euh, ku bëgg doomu aadam di jàppale ñëpp parce que ñun dañoo yàgg ci millier bi muy milieu de la mun naa wax ne Gaston sax moo ñu teete parce que dañuy doog a commencé ak moom mu doon ñu wax nan la ñu war a doxalee mu doon ñu jàppale ñun en tant que arbitre mais en tant que être humain kese ñu nekkoon ay jeunes nekk ci làmba yi mu ñuy woo di waxtaan ak ñun di ñu woo téléphone wala mu woo ñu këram euh, te li may wax nii du arbitre Sénégal yi rek laa ko waxal mais arbitre CEDEAO yi arbitre Afrique bi yëpp laay waxal parce que saa yu ma voyagé ba demee à l'extérieur même chose lañ may wax naa ani ani garçon man leen il va bien mu ngi foofu Euh, moom tam saa yi ma ñëwee gisee dama ko ko doon wax ko jottali nuyu gars yi nuyu arbitre yi nekk en Afrique euh, mu doon loo xam ne vraiment plaisir la pour ñëpp vraiment euh, moom daal mun naa wax ne moo ñu tete apporter nañu lu bëri lu bëri bëri nit ku baax comme ni ma ko waxee te li ma gën a neex ci moom mooy nit ku dëggu lu mu la war a wax di nga ko dégg waaw loolu daal laa mën a témoigne ci moom. ñu doon gis euh, léeg mu am ay euh, combat yu xam ay jafe-jafe ci biir ci biir arène bi mais moom day wax wax ak yéen waxatul laaj kii yi parce que mën nga ñu dévoiler loo xam te ni daanaka def euh, làmb ju décanté wu wala une xam ne ñu dafay leeral bi waaw loolu am na parce que boo xoolee ñun bi ñuy nekkee ci arbitrage bi ñu doon doon tàmbali dañoo nekkoon arbitre yoo xam ne dañu doon appliqué texte yi maanaam texte yi lii la ñu wax rek loolu la ñu appliqué directement. mais ñu mel ni Gaston ñoo doon wàcc ba ci suuf ndeysaan bu ñëwoon ba yoret kaan bi dóoruma ko nee ma si tool di laay waxal bu leen yàq sama komba loolu lu mu tàmmoon bu leen yàq sama komba gis ngeen gars yi ñëw fii nii bu leen ko doxalee nii du baax def leen lii ak lii euh, duñ ko dégg sur le champ nag parce que dañ ñu dem toog waxtaanaat suñu biir après changer c'est parce que moom moo ñu ñaax moom moo ñu won yoon. te biñ ñëwee moom lañ gisoon donc euh, dañuy def loo xam ne euh, ñëpp dañ ciy kontaan maanaam dañuy jàpp ne kii lu mu wax ni leçon la yàgg na ci làmb ji yàgg na jàppale làmb ji donc euh, lu ñuy wax pour defar rek la mais pas pour yàq. donc wàllu promo promotion lutte wàllu arbitrage wàllu organisation Gaston nekkoon na koo xam te ni lu mu téye woon na ci loxo waaw gason amul lu mu bàyyi woon ci làmb pàcc yëpp amul ku mu daawul. jokkonteel amul ku mu daawul jàppanteel pour liggéey bi baax muy manager promoteur arbitre ñëpp organisation amul kenn koo xam ne Gaston mus na la bàyyi parce que dafa bugg rek làmb dox nee naa la waa CEDEAO bu ñu ñëw dafa may woo téléphone ne si toor sa gars yi ñëw nañ ñu jaar leen fii ma may leen ak blouson ak xaalis te noonu la ko daan defee te kenn laaju ko dara da doon jékki-jékki jaar leen fi bu ngeen xoolee am na combat yu mag yu fi amoon arbitre CEDEAO yi ñëw foofu di seetaan ñëpp sol blouson ba pare da ci doon teg xaalis vraiment kooku moom ah, en tout cas daal li ma mën a wax mooy làmb ñàkk na la làmb ñàkk na donc ñi nga xam ne ñoo ŋànk làmb yi tey muy pour yi ndaw yi fi nekk léegi wala ba ñu nekk ci gannaaw Gaston lan nga yaakaar ni buñ ko buñ ci buñ ci tegoo euh, euh, message yi Gaston dina gën a jëm waaw c'est que lii rek mooy wane ne àdduna amul solo àdduna amul solo ñun ñëpp euh, ñoo fi ndoo ñun ñëpp dinañ dem bàyyi fii. Euh, moo tax daal ñun ñëpp nañ ci am jàngat wane ne benn lañ euh, fi ñu tase moo tax yenn saa ñuy jote euh, mais ku ci nekk bëgg làmb baax rek moo moo la tax a jóg voilà donc li ma mun a wax rek même du promoteur yi kese mais ñëpp ñu nekk ci làmb ji ñu jàppalante xam ne àdduna nii la ñii dañuy dem ñii di ñëw loolu ku ko jàpp rek xam ne vraiment war nga ci tiire benn leçon bu am solo muy ñëpp nag ah man waxuma promoteur rek arbitre yeeg ñëpp laay waxal ñëpp ñu nekk ci milieu bi voilà. bu yàggul sax ñetti fan la am. nga député maire de Hann Bel-Air donc Gaston Mbengue comme ni ko ñëpp ko xamee ñëpp xam nañ ne que commune Hann bel dëkk donc quartier des Maristes ñun li ñu booleex moom bu dul mbokk gi am na lu bari lu ñu boolee muy le Sénégal Gaston nekkoon nit koo xamante ne ci taxawaayam ci liggéeyam. ci engagement am lépp lu mu ci def rek dana mooy Sénégal nu mu baaxee ñun nag ay mbokk nañ ay dëkkandoo nañ ñu nekk ak moom nekkoon ak moom ci lépp loo xamante ne dafay taaral gox donc daan nañu jokkoo ci lu bare ci loo xamante ne lu mën a jëmale commune bi la bu gisee lu anormal son premier réflexe mooy woo jox la conseil donc muy koo xamante ne euh, au-delà de la relation bi ñu am surtout entre maire et administré mag la woon ci man mun naa ne kilifa la woon ci man mu nekkoon nit ku laabiir nit koo xamante ne ku am yéene ku mën a partagé maa ngi fàttaliku benn combat muy ci événement yu mag parce que c'était vraiment l'homme des grands événements bu mu doon organisé dafa invité équipe bu Hann Bel-Air yëpp donc pour en tout cas commander leen ku ci nekk maillot te maa ngi fàttaliku jamono jooju dafa tukki nekk bitim réew ne ma Babacar yónnee ma listu équipe yi nekk en Bel Air yëpp équipe bu ci nekk dafa jël bind ci turam tuuru ASC bi mu organiser def un donc kooku bu dul nit koo xamante ne dafay defar d'autant plus que amuloon aucun intérêt à le faire daf ko ñëw def te yàlla tax mu doon koo xamante ne man ku ma bàyyi woon la xel moo tax dañ koy ñaanal yàlla di jaaree foofu di jàll aussi ñi nga xam ne ñooy ay naataangoom di promoteur de lutte mais di jàll aussi CNG mais di jàll aussi ki nga xam ne mooy njabootam muy soxnaam yi di doom yi mais di surtout encourager ki nga xam ne mooy Makan parce que ku xool Gaston lii mu doxalee ni mu organiser yëf dafa mel ni xamoon na na lay dem mu préparer Makan tank yi mu jël yàlla na ko suñu borom taxaw mais di ci jàll également Sénégal parce que c'est le Sénégal qui a perdu lutte sénégalaise am na foo xamante ne egg na fa tey à l'international moom bokk na ci nga xam ne en tout cas teg na ci loxo bari na fi tey ñoo xamante ne làmb defar na leen loolu mun naa ne kooku gis-gis la vision la bu ñu demee tey ba yenn entreprise yi am fitou di def des dizaines de millions voire centaines de millions jàpp nañ ne que kooku bokkoon na ci ci nga xam ne en tout cas moom Gaston leader la woon donc tey bésu njàll Sénégal di ko rendre hommage ñu di ñaanal yàlla yàlla na àjjana doon këram. amiin merci euh, dañuy ñaan yàlla yërëm ko te yërëm waaye man mii taxaw di wax El Hadj Bassirou Thiam Dogo bokk ci famille làmb Gaston ma jëkk yóbbu France ci combat ki nga xam ni mooy Baboy. ak Balla Gaye signature contrat bu fa ko def moom mbaa xam ngeen ni Gaston ku ragal histoire la waaye boo bëggee daw dal ci kawam day daw dajeeg yow waaye nag moom li mu doon ci àdduna def na ko ba mu jeex ndax nag Gaston dama koy wax ni ko ñetti ndombay tànk yi benn bu ci dal na dañ naan Gaston Mbengue promoteur la waaye Gaston Mbengue laman la teeñ la tubaarkàlla macha allah. mi ngi dëkk ci diggante Kajoor ak Njàmbur Laman Teeñ bokk Bawol kon Gaston lii muy def ak ni muy jëfe te kenn ku ci nekk ñun communicateurs yi ba ngay jógee Mbàkk yeewal na law nag balaa ngay ñëw bu dee xeetu teraanga Gaston bu la defalee teraanga dootoo seeti kenn kon mbéy mi ñu ngi koy ñaanal fa mu jëm yàlla na ko dàqal fi mu jóge kii di sunu doom nag di makkan di nit ko yàlla baaxal tànki bàyyam rek la roy daana ma ko tooñe daana ma wax naan ma yaag dëkkaay xale yi ñoo leen di remplacer Pape Birima ak ki nga xam ne mooy Modou Mbaye waaye tubaarkàlla macha allah lu mu deful ci xeet teranga dafa di Gaston loo làmb da nga daan jàpp guddi la loo làmb da daan maa ci gën a duufle mm. waaye li mu def ci xeeti teranga Gaston làmbam sax bu guddee tëgg ñun communicateurs yi nga xam ne dañoo yàgg bokk ci làmb ñun dañuy bëgg mm. kon yi woo mu daan defal yàlla na ko yàlla fekk ci biir bàmmeelam te yàlla xere ko àjjana yéen it ñu ngi leen di gërëm mm. ndax yéen a jël relève dara ñaawul yàlla yàlla guddal seen fan te def leen mag mag mu am ñam ci barke Seydina Muhammad jërëjëf jërë ngeen jëf